ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak weer Touba ca kanam taxawal na kër asaka yi ànd ko ak boroomi xam-xam yu ràññeeku ci réew mi ci njiital sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Mourtada kër asaka yi des ko taxawal ngir dajale ak a séddale yi jullit ñi si anam gi gën a dëppoo ak lislaam incha allah gaaw ñaar fukki fan ci weeru novembre ci la ñuy amal bésub tàmbali liggéey boobu muy cérémonie de lancement bi bu ñetti waxtu jotee ca barabu waxtaanukaay di salle de conférence kër sëriñ Touba bi nekk tuuba darul mannaan wa jaasiban wa mursiddan muallima wa xaayidan ilal hudaa mukarrima wa aadiyan wa naasiran wa munifa li kulli man yanfauni wa bil tufaa